salaamaaleykum mbokk internet dakar net point com euh, tey ñu ngi fi yëmbal euh, jàkkee ndewen di dalal oustaz boo xam ne euh, macha allah ñëpp ko sopp ñëpp ko bëgg ci dalam ci léppam tey moom la ñu dalal mooy oustaz Modou Fall duñ jox duñ def lu dul ak jox ko kàddu yi mu nuyoo mbokk internet yi après ñu dikk ak moom ci waxtaan oustaz ñu leen di di la ziar. jërëjëf maa ngi lay fay nuyoo bu baax di nuyu waa Dakar point net bépp di ñaan yàlla sunu borom yal yàlla boole ko ci site yi gën a déglu. yàlla defal leen tawfiix ba li ngeen bëgg ci seen liggéey lépp yàlla jàpp na jàppandalal leen ko di nuyu mboolem soppe mboolem ku ne ci réew mi ak bitim réew di ñaan yàlla sunu boroom yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. mu ngi noonu kooku mooy Oustaz Modou Fall duñ def lu dugg waxtaan ak moom ci li ñuy waxtaan ak moom mooy actualité mooy euh, euh, féticheur bu génn nekk kunkande neen day xat géej gi te loolu yaakaar naa tey jii loolu bu amee dañuy fas yéene ñëw seet si kilifa bu mel ni Oustaz Modou Fall waxtaan ak moom ci loolu di ko laaj ah, loolu Oustaz nan nga ko gisee. waaw loolu yaakaar naa waxoon naa ci ma ni leen comme nee na daf koy xar mm-hmm. euh, te am na ci sunu ndaw ñoo xamante ni bii bëgg nañoo tukki mm-hmm. te amuñu yoon buñ jaar mm-hmm. ah bu yàlla dogalee mu xar ko it facilité lay doon ci ñoom ndax su boobaa ku am oto bu baax danga mën a dem ba yegg te doo am benn problème ndax nit moom lépp loo xamante ne bi domaine sunu borom la rek nit waru cee dugg te am na loo xamante ni bi boo gisee yàlla may ko yonent yi daf daan joxe exemple ci ñoom yontu yàlla Suleymaan daan na wax ak jinne yi yontu yàlla nooxit amoon mayam dund at yu baree baree bari yoo xam ne benn yonent dund ko fa tabaarakallaahu may yooyu nag dafa am ay jaam ñoo xam ne ci biir jaam ñi ñoom la ko yàlla di may léegi nag boo waxee benn mbir ni mën nga ko te nit ñi xam ne liikat kat diw la ko yàlla mayoon su boobaa nit ñi duñ def la dul seetaan rek xam nga dañ ne naan lépp looy bañ mu jot bul joxe dat boo joxee dat rek dina ñëw ndax heure boo yeewoo benn jour wàññeeku na fi mu ne nii tam a ngi jege si. Mhm. ah nañu patienté àndandoo toog xaar rek. mais moom dañoo gis mu choisir ci jour tam bi ne moom la ko bëgg a xar. Ah, tam de moom jour bu màgg la. Mhm. ndax bari na yu ci xew ci lislaam mhm. eh, bari na it ay ngëneel. la tax mu choisir ko nag moom moo ko xam. li amal solo population beeg nit ñi rek mooy ñu ngi koy déglu. te ñu ngi koy xaar. waaw ah, mi ngi noonu kookoy uh, oustaz yaakaar naa lu mu wax foofu noonu am na solo macha allah du ñu def rek ah, lu dul duggaat moom ci beneen ah, ci beneen waxtaan oustaz gis nañ fan yee passé problème wu sa naataango oustaz Matar Sarr waali porté nga plainte ba yàlla def ma ci ndox mu sedd ba retiré plainte bi mais li ne laaj est-ce tey jii jotul ngeen def benn médiation jéem a ànd ak oustaz ba ci yi ngeen toog jéem a waxtaan ak moom. mais loolu jaru ko. même bu toogaay bi amul solo li amoon solo rek. Mhm. mooy jàmm dellu siwaat ñu dox sunu rôle en tant que jullit bu bëgg a defar. Mhm. waxuma nag jullit bu bëgg a yàq jullit bu bëgg a defar. Mhm. ñun bi ñuy dox médiation jàmm dañu bëgg a defar parce que loolu mooy suñu rôle. ndax innamal muminuuna ixwatun la yàlla wax fa aslihu bayna axawaykum nit ñi nag am na ci nafiq ak seytaane yoo xam ne boo leen dégloo doo def lu baax. parce que la ñuy bëgg nga wax ko doo ko wax. Mm-hmm. man sama gimiñ gi kenn dakaa moom. kenn damaa mën a wax loolu ma bëgg la wax. Mm-hmm. toog sa kër yor sa ordinateur waaw dañu bëggoon nga wax nanga du waxuma tus li ma sentir laay wax. Mm-hmm. li ma santiir mooy jàmm ak salaam dox naa ko Wally Seck wax naa ca. keneen ak keneen wax na ci retiré na plainte bi mais sant yàlla jarul même buñ toogul amul solo toog bi amul sens. li am solo toog bi hmm. amul benn sance gise bi amul benn sance hmm, parce que dañoo déggoon benn oustaz ku ci mel ni Iran Ndao ne moom loolu da koy sàkku pour ñoom ñaa ñu toog. même bu ko dee sàkku it. Hmm. man sama gis-gisu bopp toog bi amul sens te gëw ma ni dana am. parce que dégg nga Makhtar Sarr ci ay kàddoom mu wax ni moom. toogul ak kenn yónniwul kenn mais nag ñi war a dox tànk jàmm dañ koy dox. kon toog bi. am nag amul l'essentiel gi mooy. kër pelante woon retiré na ko. Mhm. nañ xool leneen continuer nekkaat ci leneen. Mhm. mais euh. nit ñi nga xamante ni bii nag ay moo leen ñor. Mhm. nga xam ni bëgguñu jàmm. nga xam dañuy bëgg nga yor micro bi naan diw nangam di xasaateeg di tooñ. ñun bokkuñu ci loolu kenn mënuñu cee dugal. kuy commentaire nga commentaire ñun duñ ko xool miis nañ commentaire. xam nga boo optee ni da ngay wax ci média moom sooraaleel ñaar. sóoraaleel ni danañ la saaga ba nga nooy nipp. sóoraaleel ni danañ la xas ba nga nooy nipp mm-hmm. ni nga ciy amee teraanga dajeeg nit mu yëkkati àdduna ak li ci biiram jox la ko mm-hmm. nit woo la nga ñëw mu teral la bul mm-hmm. jàpp ni loolu dong mooy mission bi am na ci yeneen côté yoo xam ne saaga la ak critiquer mënta ñàkk xam nga ni foo gisee deux cent commentaires yëpp nekkul ay tagg yaa ko gën a tey boo gisee deux cent commentaires Facebook boo gëmee nit deux cent commentaires yëpp ay tagg la yëgoo li xew jàppal sax ni cinq moo ci tag yi ci des yëpp ay saaga la ñu lay saaga xamoo leen gisuñu la dañ lay yokk tiyaaba rek su ëllëgee luñ julli woon yàlla jël ko teg sa loxo mm-hmm. mais tamit oustaz gis nañ ni que ni eh, moom alxuraan ci léegi saa yi boo ci firi rek yow mi toog di ko seetaan sax da ngay jàpp que ni yow lay waxal am nañ ci toog di laaj ne euh, oustaz bi est-ce que woon jéem a xool nu mu waxtaanee mais maanaam tur bi mu tudd looloon est-ce que woon ñàkk parce que mbokk sénégalais ñu ngi koy laaj ku ci nekk ak na ngay communiquer ku ci nekk ak na ngay jàngalee Makhtar Sarr jàngalekat la yarkat la defar jikko yi mooy ambition woon mhm. pédagogie ba muy jàngalee nag ak façon ba muy jàngalee loolu moom la concerné mhm. man oustaz Modou Fall ak pédagogie bi may jàngalee ak façon bi may jàngalee mhm. ku ci ne ak sa may ku ci ne ak la nga gën a miin parce que boo demee ci école bi dañ la naan diw mii mooy professeur mat kii moo yor anglais. kii mhm. moo yor euh, science. kii mhm. moo yor nangam kii moo yor médecine. Mhm. mais ku ne ak fànn ba nga gën a mën ak na nga koy partagé. moom xëy na message am ci noonu la ko mën a jàllalee man tamit ci noonu ci ni ma mën a jàllalee sama message laa koy jàllale pour man loolu amul benn problème. Mm-hmm. d'accord mi ngi noonu comme nu nga ko waxee yaakaar naa ne loolu noonu leer na du ñu def rek lu dugg ci événement bu rëy bi naan événement tabaski euh, gis nañ ne instant yii nii euh, oustaz mbaraan gi tar na de mbaraan gi oustaz maam lan ngay wax euh, xale yi jigéen ñi yoo xam ne ñoom dañoo jàpp tabas tabaski rek dañoo war a jàpp mbaraan ba ba dara di leen ci fekk ëllëg. mais ñoom ñuy baraan sax xamuñu luy tabaski parce que boo jàppee ni ci ay naxaate nga war a wutee xar. Mhm. booba xamoo importance bu tabaski. dëgg tabaski du évétement boo xam ne bu jubsee da ngaa war a teg ay dil wala nga triande ay nit pour am tabaski benn ñetti fan la yàggul. Mhm. boo fi lebee xar dangay fay boroom. boo fi lebee tisi da ngay fay boroom. Mhm. boo fi lebee ay takkaay da ngay fay boroom. am na ñoo xam ne nag bu tabaski jubsee dañuy rakkaaju nga xool seen statut yi rek mbasin yaa ngoog mhm. nouveau arrivage baak mhm. leble mhm. bii mooy dernier modèle beeg ngay leb rek gëmmu leen ci statut yi jaaykat yii bu ngeen amul ku la ci naxtaan ba nga jënd quatrième jour la lay commencé woo ak di estati naan fay leen bori bu la kenn dugal ci lu mënul Mhm. boo yoree bu simple bu baax tàngalaat ko ndànk dem julli ji. des fois ci esthète yi dangay gis xale jigéen toog ne ah, maa ngi nii du ma wax kenn defal la mais bu jour ba bu ma kenn laaj fan laa jëlee sëba ak fan laa jëlee yëre bu ma sol. parce que ñoom xamuñu moom laa la wax sànq ne la xamuñu importance su tabaski. Mhm. benn mooy julli ji wuñu. Mhm. xamuñu tabaski seen ñoom liñ jàppee tabaski du tabaski liñ jàppee tabaski mooy. sol sa vaccin togg dugg ci waañ wi nii laa xëyee. ngoon gi nga sañsewaat tabaski validé te yàlla néewu la naa ko. te julliwoo benn jour ci journée bi. d'accord nga wax bi. Mhm, ndax ay nit. Mhm. dajale seeni alal. Mhm. tabaskee ko mais loolu taxul ñuy wax tabaski tabaski jaamu yàlla la. boo ko amee jëndal xar boo ko amul wàcc na la. parce que yonent bi ci dundam dafa rey ñaari xar ñu ne ko lu tax. mu ne benn bi pour tamas pour sama tabaski man Seydina Muhammad bi ci des pour sama xeet ba yawmal qiyaam ku amagul tabaski yóbbaale naa la géew. yàlla tegul kenn lu mënul ku ko mën nag demal nga jëndi xar mu baax. tabaski soo ko manee ba man ko jaamu yàlla la demal nga jëndi xar mu baax mhm. indi ci kër gi jullit ñi ñooy feetu am na boroom kër yoo xam ni tuuti mhm. la ñuy lakk ndax nay mhm. déedéet tabaski lakkal yàpp bu baree bari na fi des boisson bi na doy na xale yi di fii ci boisson bi <laughs> kanet yi nañ koy sànnante pomme ji nañ koy sànnante banaana ji nañ koy sànnante kër gi nañuy féey ci fur yi féey mm-hmm. <laughs> yàlla xam ne tey nag sama xeet yonent bi xam ne tey nag sama xeet mm-hmm. dëgg dëgg nag ñu ngi tabaski ñu ngi def seen sunna mm-hmm. loolu moo baax ñu nu bokkalul diine bu seen événement ñëwee dangay sentir ni tey am nañ événement dëgg la dëkk bi yëpp ay riir foo toll xam ne tey jii am na lu xew ñun saa nga dégg ku naan man de wax dëgg yàlla xam naa ne moom bu ma amee benn kilo kilo yàpp lu mu lay defal. bu ma lakkee ki lakkal 4 kilos. ci jour bi. <laughs> ñëpp lekk. <laughs> boisson ji di jallaaxoo. Mhm. ñu yëg ni tey la tabaski. feet feetu jullit jullit ñi ñoo war a feetu. feet bu ñu ko waxee mooy bég. Mhm. bis bi ngay bég feetu. feetu dëgg la. sa njaboot nga bégal leen boo ko amee. Mhm. maye xaalis. boo ko amee maye mooy mooy gi. waaw. mais xaalis teral ñëpp. woo jigéen ñi ku ne nga ñëw dóor ko cinquante mille mu ne pat. <laughs> xale yi boo ko mënee ku ne vingt cinq mille. borom kër yi nañu bégal seen njaboot ci bisu tabaski parce que tabaski lañu am comme fête. Mhm. loolu am na solo euh, mais oustaz tamit ba ñuy gis euh, jamono da ngay gis boroom kër bu nekk événement tabaski du tëdd du nelaw lépp ngir xalaat xarum tabaski te bu ñëwee amaana soxnaam euh, ne moom bëggul yi wala mu xeeb ko loolu tey lan ngay ban ban message ngay jàllale tey. ci góor gu ñàkk fayda kese mooy kër kër yi ba am xar. Mhm. indi ko am ñu koy xeeb. dëgg la. sàkku teraanga ni mu méttee nga lijjanti ba am ko. Mhm. indi sa xar sa jabar naan la faar bi daa noox <laughs> alaaji nag bii moom mënoon ngaa am beneen nel tëll mbéj mu dali fële lijjanti sa xar ba am ko indi sa jabar toog naan la ay faar bi daa noox mhm. ay alaaji nag bii moom wala bu la ko ñemewu la wax sax nga wan ko xar ma ah bii la <laughs> ñëw na kon ah waaw jëm la ko xeebal ba nit kenn du ko xeebal li mu am dëgg la su xar mu rëy amul solo mhm. yéen ñii di wane wu jël seen xar yu rëy yi di sang bis bu ne di wéer ci poto lampe bi it ngeen bàyyi wanewu mhm. am na ku ko amul looy wane ne suñ xar mi nii la toll xar mi nu mën a toll ci kàttanu sunu borom moom midi ci mhm. tabaski dana fekk mu ne ci cin li di baax mhm. amul sens loolu tendance sax kenn daa mën a xàmmee yàpp xar mu rëy ak xar mu xar mu tuuti boo ko lakkee ba teg ci bool bi kuy ñoom diw moo nekk nii kenn yàpp yàpp la te yàlla jaamu yàlla gi la ci soxla mais tiitaru bi da ngay gis koo xam ne bu wàccee xaram moom deux heures ci bëccëg fekk waa koñ bi ñëpp génn taliba la koy wàccee di diri pour nit ñi xool xar mi ne xar mu rëy la ban mhm. sens la am am ñu naan sama xar jëndee naa ko cin cent mille ñi naan mhm. sama xar si lu waay tane nit nanga ko ko dimbalee te yàlla tax mhm. paaka ngay puu puukaréwu ci nit ñi di leen wan ne sama am am fii la toll jigéen ñi seen yoon nekkul ci xar mi amul publicité amul wane amul jabaru diw amul nangam sa yoon mm-hmm. nekkul ci xar mi lii laa am lii laay tabaskee. Mm-hmm. dégg nga wax bi. soo amee benn kër. Mm-hmm. am ñaari soxna. suñu mënee dajaloo ci benn kër gi ndax sa am-am foofu la toll ñëpp dajaloo ci kër gi tabaski. jënd benn xar. yenn saa yi day am problème góor gu yor ñaari jabar. bokkuñu fu ñu nekk. te sa am-am ci benn xar la ku ne toog fa mu toog ci ruqam di la proposer xar. te munoo ko. dëgg xam nga luy yoon. Mm-hmm. na kenn ki déplacé wu ñëw ci kër kenn ki nga rayandoo benn xar yéene leen ci ñoom ñëpp. parce que mm-hmm. moom nga am. fulla mooy yor kër ku amul fulla sa kër tas. Mm-hmm. yenn saa yi nga dégg ku naan diw ba mu takkee ñaareel ba léegi këram daa yëngu mais ci moom la rek góor ñaa ngi fi am fu laak fayda yor ñeenti jabar gérer ko sans problème. góor gu mm-hmm. ci ñàkk fayda nag yor ñaari <laughs> jabar te xamoo sa responsabilité di wut par parloo ñàkk fayda parce que mm-hmm. jigéen moom amul ma dem te ñëw boo ñàkkee fayda mu yab la loolu moom noonu la ko yàlla bindee mm-hmm. soo ñàkkee fayda mu yab la mën nga yor sa ñaari jabar rek la leen ba ñu mel ni montur te jàmmay am góor gu am fayda mooy yor ñaari jabar góoru yambar yambar doo yor ñaari jabar <laughs> parce que da ngay parparloo dëgg la boo demee ci ñaareel bi tagg ko boo demee si ñetteel bi tagg ko boo demee si ñeenteel bi tagg ko mhm. kenn xamul foo féete mhm. waaye am caractère am fulla mhm. am personnalité <laughs> xam sa bopp ñaar ñoo yor ñu respecté la. <laughs> waaw <laughs> comme ni ko Oustaz waxee rek ci biir waxam dégg naa mu ne jël xar bu mag di ko euh, di ko ci mbedd mi nit ñi xam ne euh, diw moo jënd xar bi est ce que tamit euh, loolu waruñu cee jéem a taxaw parce que léegi gis nekk ci koñ jënd xar bi jar un million am ñu nekk ci koñ bi ñoo xam amuñu lu ñu tabaskee. maa ngi koy wax barki démb nee naa mm-hmm. ku nekk rek na nga dimbali ka nga mm-hmm. que dafa am ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw te mënuñoo tàllal xam nga àdduna mm-hmm. ñaari façon pauvre ñoo fi am ñaari façon pauvre yàlla nee na ci alquran ñaari façon pauvre ñoo fi am wa fi amwalihim xaqun maalumun lissaili wal mahrum yàlla nee na seen alal ji yéen milliardaires yi. Mhm. am na ci àq joo xam ne ñu ñàkk ñi ñoo ko moom génne leen ko jox leen ko. ñu ne yàlla kan ak kan la mu ne ñaar lañu lis saa ili. Mhm. am na koo xam ne bu soxlaa day ñëw sa kër tëjoog yow ci saal bi wax la soxlaam. am na koo xam ne moom la ñu tuddee almahrum mooy ki ñàkk ba pare kersaam mayu ko mu laaj la. ndeysaan dëgg la ñaari laajkat a am. Mhm. ki amul kersa yi ñëw wax la soxlaam. ak ki am kersa ak. sutura mm-hmm. rus na laa ñaan kooku jëkkatil jox ko te bul xaar mu laaj la am na ñu mënta laaj mm-hmm. am na ñoo xam ne buñ dee lekk ñit it ñëw tàllal loxo parce que noonu la leen yàlla bindee am na ñoo xam ni am nañ fu lay ñëw wax la seen soxla mm-hmm. yàlla nag nee na àdduna ñaara fi nekk ki la mën a laaj ak ki la mënta laaj comprendre leen ku ci nekk àq ji mu am ci sa alal nga yëkkati ko jox ko ko ku yàlla sagalee may la un milliard ci sa compte ñaata jullitu yàlla ñoo ne ci réew mi di taqale tabaski amuñu ko ñii gëj nañoo liggéey ñii am na nañu problème ñii ñi ngi ci ay jafe-jafe ñii situation dab na leen koo mën a dimbali te yàlla tax nga dimbali ko te yàlla tax dëgg la mhm. loolu am na solo nee na ku mu mën a dimbali te yàlla tax nga dimbali ko ah oustaz naa li amoon ci ay mi jeex na waxtaan bi am na solo euh, moom laa xeex moom man sax sama oustaz la ndax euh, ci yiw gi euh, ak ci maandu gi yëpp man dama ko cee sopp te xam naa ni ma mel ci moom noonu la mbokk internet yu yëpp ne mel ci moom duñ defee loolu jox ko kàddu yi rek mu mu tàggat tàggatoo mbokk internet Dakar di koy seetaan. jërëjëf ñu ngi am mbégte lool di ñaan yàlla sunu boroom yàlla yàlla def ci réew mi jàmm. boroom teraanga yi nga xam ni itam ñu ngi ci réew mi di def lu baax. yàlla gën leen a suturaal. ndax am na ñoo xam ne ñu ngi dimbali nit ñi. ku ci mel ni Adja Marème Faye Sall nga xam ne am na mouvement boo xamante ni bii seen yitte yëpp. Mhm. mooy solidarité ak dimbali. tabaski bi man xam naa ñu baree bari ñoo xamante ni bii moom moo leen jëndal tabaski te bu ko neexoon man euh, man euh, du ko ci fekk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nag loolu ah bu ko nit dee def danga koy ñaanal yàlla mu gën a yokk ñi ci des itam roy ci moom ndax bu la yàlla dénkee alal mhm. am nga ay mbokk am na ñoo bokkal mhm. am nga ay doomu baay mhm. am nga ay doomu ndijaay am nga ay sœur mhm. yenn saa nga gis boroom alal joo xam ne am na rakkam bu jigéen buy sëy fenn ne ca ay tolof tolof tabaski jot mënu koo tàllal loxo mhm. bari na ñu naan yaay diw te am nga ay mbokk yu am problème mhm. beneen bi ci des mooy nañu jéem a am jàmm ci kër yi jàmm ci kër yi problème bari na ci kër yi torop tabaski day jot détails yi mm-hmm. diw jëndal na jabaru diw diw jëndul diw tabaskiwul diw xottiwul mm-hmm. doomu bàyyi fiiraange doomu bàyyi xew ci jamono mm-hmm. mais nañ ko moytu dëgg na solo lépp nag ñàkk gëm yàllaa ko waral nekk ak sa doomu bàyyi yàlla may ko lum la mayul nga ni doo ko supporter nekk ak sa doomu baay mag ko yàlla dénk ko teraanga nga ni doo ko supporter parce que am na ñoo xam ne yaag ñoo ma bokk benn papp mais li nu gëm mooy. een lañ la jàppal. nañu bañ a déglu information yàqkat yi ñëw ci ñun di ñu jaxase. Mm-hmm. nit lum la deful rek bu ko àtte. bul déglu waxu nit ñi teeyal mm-hmm. koo gis teeyal ci moom. jàmm jooju daal maa ngi koy woote waat ci réew mi. Mm-hmm. di ñaan yàlla sunu boroom tabaski bii ñu dëkkmal mal na yàlla defar lépp. yal na ñëpp am jàmm. ñi amagul xar yàlla na nu am xar. ñu amagul xotti yàlla na nu ko am. ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tabaski ren bi nag yaakaar naa. la ma waxoon ni jigéen ñi moom. Euh, ren daa mel ni vers Sénégal lañ taamu. koo ci wax mu naan vers Sénégal vers Sénégal moom damay ragal ni ren est-ce que du mel ni Veyde yi <laughs> xam nga am na korité bu mu tombé loon ak Vaydee. <laughs> waaw si Vaydee yaa ngi koy fàttali kër goo dugg Vaydee. <laughs> tabaski bii nag damay ragal ver senegal moom. Eh. mel ni Vaydee ci réew mi. waaw gars yi sopp nañ ko yal na yàlla defal ñëpp jàmm. yal na ñëpp wér. yal na yàlla gën a yëkkati site bi. Hmm. ñu ngi leen di ñaanal di leen suivre di leen bàyyi xel. maa ngi wax it na ci ñëpp abonné ndax information yu am solo rek la ñuy joxe. yal na yàlla barkeel leen wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw mbokk internet Dakar net yi yaa xam oustaz Mourou Fall moom moom nee naa la oustaasu peuple bi la ñëpp ko bëgg ndeysaan euh, di di leen jox dig daje ak keneen incha allah euh, di wax tamit sama bàjjen sa sa yóbbante wax naa ko oustaz nee naa ko dama am sama bàjjen bu nekk ga boo xam ne daf la sopp ndefaatu yow yaa moom loolu di gërëm aussi sama cameraman bi Dieye di ko wax moom it jaajëf